ngeen ñu jaayoon moom moom ngeen doxalee pour pour nommer ñooñu. duñu leen jaay egg leen wax ji. appel à loolu moo indi président de la république joxe instruction au premier ministre pour que dans les meilleurs délais mu formuler un projet de loi parce que dafa am ay catégories postes. Mm-hmm. yoo xam ne yooyu forcément ça va être soumis à appel à candidature il y a la nuance. c'est pas dans l'absolu dafa am ay post yoo xam ne ça va être soumis à. can appel à candidature. ñu ngi ko doon xaar ci bu mel ne RTS par exemple. non on a nommé un confrère Pape Alé Niang il a du mérite. Euh, am na compétence yi. am na parcours. mais xëy na nomination bi mooy xaw a déranger ñenn ñi. déranger wul kenn ñu mu déranger ñàkk xam la parce que fu mu ne nii sur quoi ils peuvent se fonder pour dénoncer ça. au moment où nous parlons. au moment où nous parlons y a pas eu d'égalité des chances en fait. du question amul égalité des chances c'est-à-dire que problème nomination dafa am ñaar pàcc. Mhm. problème comme nomination ça relève d'abord de la confiance. le premier CV c'est la confiance yow tey am nga CV bu gën a rafetoo moom bu fekkee man mi nga xam ne man maay assumer assumer assumer le bilan mm-hmm. wóolu ma la quel que soit ton CV je ne le lis pas c'est donc confiance dafa am c'est le premier meilleur CV mm-hmm. beneen leneen tegu ci ensuite le pouvoir discrétionnaire ba au moment nous parlons bu président am ak premier ministre c'est intact léegi ñoom dans leur générosité et dans l'innovation bu ñu bëggee indi en termes de transparence la gouvernance et la gestion des ressources humaines ñoom en toute souveraineté ñoom ñoo ne dañuy préparer un projet de loi ba nga xam ne ils vont préciser yeneen poste yoo xam ne du ñu jóg ni rek nommer nit mais dañuy formuler appel à candidature. mais woon leeral bien avant pour que ko ñu yëpp dégg nañu li may wax. nii comme par exemple. on ne sait pas encore. li ëpp solo. waa déglu ma ëpp budget joxe nañ ko. waa déglu ma c'est des militants à votre c'est pas un problème de budget xam nga bu njëkk ba. Mhm. dañu doon nommé nit rek famille bi yëpp tëgg sabar di tàccu parce que lan la ñu ne fu mu am am na moyen pourquoi parce que à l'époque dañu doon assimiler nomination boobu à des privilèges mhm. et comme privilège la woon boobu moo doon indi yow tam boo demee ay tibb rek le lendemain tu te transformes ba ñi la nommé sax duñu la xamee mhm. fii amul wax bii c'est pauvre bii c'est riche parce que demoo pour t'enrichir da nga dem simplement pour apporter sa touche surtout touche. Mhm. foo xam ne ça ne marchait pas on attend de toi nga relever le défi ba nga xam ne suba dañu naan kii moo ñëw mu transformer ba nga xam ne du point zéro ñu ngi nekk au point quatre-vingt-dix il faut que nit ñi xam ne on n'est pas dans une continuité de mauvaises pratiques mais on est dans une rupture par rapport à l'ancien système et par rapport aux mauvaises pratiques mhm. donc changement boobu am na ñoo xam ne ils se pas encore préparés loolu moo indi